leneen li ci des mooy nawet baa ngi nii di dugg si sëriñ bi nee na man nañu ne ñi ngi naan taw na fii taw na fee te dégg bu ñu fenn foo xam ne fii ndax ñi ñuy dégg ñuy publicité ay ay ay jiwu sax jiw ya ñuy ya ñuy tudd ay juróom kilo la ak fukki kilo loolu nag moom jëriñu kenn dara kon jiw yi nga xam ne dañ ko doon jox ni ñuy liggéey nañ leen ko jox laneen la ci des nag mooy ñun buñ ñu ko joxut nañ dem bay gerte da dugub ak ñebbe ak laneen ndax lu mu ci doon lu nekk am na njariñ mm-hmm. ndax kat nañu leer ne fii ñu nekk moom ci réew mii ñu nekk lenn lu nekk nit mën na ko fee def ba jariñu ci bu fekkee ne gerte rek du ab liggéey suñu amul gerte nañ bàyyi leneen te liggéey yi waaye daal sant nañ leen yërëm nit ñi di leen jox aw jiw di leen jox ab engrais bu ñu leen ko joxul ñu bàyyiwaat lépp ci loxo yàlla ndax maa mm-hmm. ci doo loxoy doomu aadama bi moom mën naa jeex waaye li ci loxo yàlla du jeex kon nañu góor góorluwaat ci nit ñi te yërëm leen ndax bu ñu leen fabee teg ci kanam fal leen dañ leen a fal ngir ñu taxaw ci kanam doomu aadama yi taxaw ci soxla yi doomu aadama yi waaye nag duma nit ñi tëj nit ñi taxut ñu fal kenn nañu dimbale nit ñi te yërëm leen te jàppale leen te yàlla tax lii rek mooy li am solo sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp